jërë jëf mbokki internet Timtop K 221 ginnaaw ba ñu leen nuyoo di am bégte ak contentement ci ànd bu rafet bi nga xam ni yéen a ngi koy ànd ak ñun saay su nekk bés bu nekk dañuy daal di door suñu kàddu ak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un boo leen déggee kàddu gilee xam ne askanu lislaam nekk na ci naqar rawatina yoonu murit ginnaaw ba ñu ñàkkee jëmm ju tedd jëmm ju màgg di wuyoo ci turu Latif Diène moom Cheikh Issa Diène nekk xalif général ci kër Cheikh Issa Diène moo fi dal di wàññeeku nit yi léegi-léegi yemoo ko alxames tey jilee di le 21 février 2024 mu nekk xibaar bi nga xamante ne xibaar bu tiis la nekk xibaar bi nga xamante ne képp ku ko dégg di la neex ndax nekkoon na jëmm joo xamante ne wàlliw la nekkoon na jëmm joo xam ne dafa jubóon ak sunu borom ba lépp lu mu ko mosaan wax mu ne waaw kon askanu Sénégal ñàkk nañ benn jëmm ji nga xam ne daanaka mën naa ne dootuñu ko amati di wax képp ko gis vidéo bi na nga ko partagé di ñaan sunu borom tas na ci barke lépp loo xamante ne xibaar la ajuwaat ci mbir moomee ñëw faram fàcce leen ko ba mu leer nañ jàng